moo jot léegi mais seeraan najem wahabiste yi kin naan Ahmad Sugu doon jël kàddu di wax man mii di wax nag nëbbutuma laqtuma Abdou Baaxe Loo laa tudd sëriñ asan Loo mooy sama baay Serigne Assane Loo Serigne Modou Loo Isaa ko jur musuma wax ci lii mais lii dinaa ci wax ndax ma cay dégg mu ne sama baay kaamil bi nga xam ne moom la Serigne Touba moom la Serigne Modou Loo Isaa jëloon Serigne Touba mu doon ko Serigne Modou Loo Isaa sama baay da ko jox docteur Ahmed Loo di ko gërëme billaahi wal qur'aani xasim loolu amut sama ñoo bokkal baay ñëpp jël naa defi ñu lancé leen ba xam loolu fan la mas am du dëgg sama baay mus koo jox ab kaamil wallahi wal quraan asim sama baay mus si jël kaamil bu Sëñ bind ci loxoom jox ko docteur Ahmed Lo ne ko dama la koy gërëme amut amut mësta am sama baay mësta am kaamil sax bu Sëñ Tuubaa bind ay xasida la jële woon ci Sëñ Tuubaa bi mu faatu ab taawam sëñ xaadim loola wax na ko bis boo faatoon nan ma ko jiital sama bàmmeel kar ba mu faatoo sëñ xaadim def na ko bi des mooy dane sëñ Modou Lo Isa gaal yooyu ko sëñ Tuubaa doon yanuloo mu jële ko jolof doon ko indi njaareem bi mu koy yenneeku deru bopp bi da caa topp gaal ga sax du woon jolof njaareem gànnaar la woon gaal gi gànnaar la ko jële woon di ko yut si maam Ceerno Daaru Marnaan noonu la demee bi ni mu ko yan woon diisaay bi nag maanaam tànga tàngaayu weñ gi daal di daal di lelli bopp bi def ko ah, benn benn xooli ko xooli bi ci des it da caa wax ne keroog maam Ceerno da caa kontaan ba jël ab sées boo xam ne si Cheikh Sidiye moo ko joxoon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa jox ko maam Thierno maam Thierno da Sëñ Tuubaa daaw bu mos a toog jox ko maam Thierno maam Thierno gërëme ko maam maam Thierno jox gërëme ko sëñ Modou Issa sëñ Modou jox ko sama baay sama dañ ko liggéeyloo am néeg euh, ca kër gu mag ba koy liggéeyloo néeg ba mu mu lii ko ba mu gërëm ko jox ko sées ba loolu du dëgg déewut noonu sées bi. sëñ Masamba la ko sëñ Tuubaa joxoon sëñ Masamba mayoon ko sëñ bu looy sa sëñ bu looy sa bi mu nelawee bi ñu doon bagage sama doon doon ko benn bis lañ toog fii dër mi nam ci kër gi di naan attaaya docteur Ahmed Lo dawal oto moom agsi nu yonte bagage dugg ci biir na ko man kat dama yurut benn bagage boo xam ne si bu jóge woon ci sama waajur moo ko mën a fàttali ko ma bëggoon sées boobee daal soo ma ko mënoon a jox daal nga jox ma ko suñu wax ko léegi daal di woo sama mag ñu wax maam daam mu ñëw mu ubbiloo ko magasin bi jox ko sees bi mu dem nii la demee amut la neen amut beneen xissa bu la ci wax boo xam ne si maanaam bu deme noon la amut du dëgg dara du ci dëgg maanaam yu mel ni boo dee bay wax mag kenn du ko dooral amut dégg naa ko yéen mu ne ci waa ji ne ci kër sëñ Asan loolu la jàngi alxuraan ba bindee kaamil ci kër gi jox ko sëñ Abdulaay loolu du dëgg binduut kaamil fii waaw loolu axamaa ah, ko wax fii moom xaw ma fu mu bind ab kaamil mais du ci kër gi sama baay ko jàng alxuraan waaye bind ko fi it moom loolu amut te ak yeneen ak yu mën a wax yoo xam ne si waxuñu ko <laughs>